xam ne yu saxilu dana jàppandal dana yombal umara dunya mbiri àdduna wal axirati ak alaxira kal xiyali ay pexe fi talabi risqi ci sàkku wërsëg war na jaati ak mucc min xamaraatil mawti ci lëgg-lëggi dee wala tis tisi wa min shadaidi yowmil ak ci tartale bis penc lahi ragal yalla lu bokku na ci li nga xamne mom day yombal sey mbir ci aduna ak alakhirah nga xamne bokku na ci pexe yi tax dal nga mucc ci tisti si ak tisti si bis penc ba nopi am wursu gu yaatu te ni fi ci aduna la ci ëpp solo te ci moy mooy lahi ragal yalla waaw li taxa mucc ci lepp lo ragal am lepp lo bëgg ci aduna ak alakhirah ragal yalla ci jitu qaala allahu taala su borom nee na wa man yattaqi ku ragal allah yàlla yajxal kon mu def laxoo laxoo ñeel ko maxrajan ab génnukaay ku ragal yàlla yàlla defal la bunt boo aw génn ci lépp lu lënt ak lépp loo ragal ak lépp loo xam du yiw qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonente bi sax firi na ko maxrajan jee mooy ay li mu ci namm من شبهات الدنيا كلنتي أدنى ومن غمرات الموت أكي لق لق ومن شدائد يوم القيامة أكي ترطري بسبينش قال هو أحنك في كتاب النورين من يونت بنانا بسم برمنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا دابو غوحنا سورغ الله يالا يال دخل بنتو بوجار بمچي لنت ادناك متي متي ديه ترطري بسبينش بس وفيه نكار نتي كتاب النورين أيضا قال الله تعالى ومن يتقي كرغل الله يالا يجعل كل مدف له نيال كو من امره جمبرم مبيرم يسر اك جابندي فري كون اي لمت نام سهل كون يومال الله يالا عليه تي امر الدنيا مبيرم ادنا والاخره اك الاخره بس برام ني ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا يعني لولو موي يالا yàlla da ko yombalal mbiri àdduna ak alaxira yépp da ko yombalal ragal yàlla yàlla yombalal la mbiri àdduna ak alaxira mhm. amun yattaqillah ku ragal yàlla ya jaxal ko mu def loxo ñaan ko maxarajan ab gennukaay wa yarsuqu tem koy wërsegal min haythu la yahtasibu ci foo xam ne du ko foog yani yax ni dafa jublu yu barik mu barke lo ñaan ko fi risqi ci wërsegam ku ragal yalla yalla defal la buntu boy génne ci lépp lo xamni gënut ba nopi wërsëg gëna wërsëg gu yaatu woo xamni sax fogo go won may day doxal barke ci wërsëg wa neena na wa min zaalika bokk na ci lolé kasratul istixfaari barik sàkku jéggal ana alayni ci waxtu yu guddi wa atrafan nahari ak cati bëccëg bi bokk na ci li taxa mucc ci àdduna alaxira ba nopi bari gu xewul bokk na ca nga bari la jéglu sa borom ci waxtu wu ne muy ci guddi muy ci bëccëg rek foo toll di bari jéglu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa man laa sama ko taqoo al istixfaara jéglu jaxala kon def allahu yàlla la ñal ko maxrajan ab génnukaay min kulli dayxin ci gépp xat wa farajan ak wuññiku min kulli hammin ci lépp njàqare wa yusran ak yomb min kulli xusrin ci gépp jafe wa rasaqahu te mu wërsëgal ko min haythu la bu ci woo xam du ko foog ne yonent bi nee na ku taqoo listixfaar saa ku taqoo di jéglu rek foo toll lépp lu xat yàlla dina la ci génne lépp lu njàqar yàlla dina la ko teggil lépp lu jafe-jafe yàlla dina la ko yombalal noonu la wërsëgal sax bu wërsëgal la loo xam ne foogu ko woon wa minhu bokk na ci alwudu njàpp li kulli hadas ñeel mépp toj bokk na ci li tax a ba noppi tax a am xéewal àdduna alaaxira taqoo am jàpp saa yu toj lee daal jàppaat qaala ibnu salaam radiallahu anhu ibnu salaam abdullahi la tudd dafa bokkoon ci yahood yi gannaaw bi nag mool batiku tuub moom dugguy lislaam bàyyi gaayee ca yahood ga nee na fekk naa fii baax di ci lenn li nga xam ne ansala wàcc na ko allahu yàlla taala kawe na ni annahu naka ma man tawba ko japp li kulli hadas ñal mepp toj wala mi yakum tane ku dakhalan di ab duggat halan nisaay ci jigen ni fil buyoti ci neeg ya ala yak nasib te mal alal bi khayri haq jilul aq ci lu deug rusi xakon warsagalef ko min dunya ci aduna bi khayri hisab ci lu hisab ibn abdullah ibn salam neena ya, gis fekk na ci yenn ya, téré yalla wacce xëy na kon da koy jàng ci lu mel ni ne tawreet mbaay ndegam moom daana jàng seen jàng moom yi ma xam-xam la woon nee nañu foo jëfal la woon njëkk mu dugg ci lislaam xëy na foofu la ko jànge mu ne koo xam ne da ngay def saa yoo tojlee daal di jàppaat te doo nekk dugg ci jigéen ñi leen fekk ci seen néeg te itam booy da nga seet lu leew te bañ a seet loolu neex rek nga daal di wute ne loolu ku ko takkoo yàlla bari sa wërsëg ba kenn du ko mën a takk ka kenn du mën a takk ka wàññi wërsëg dina bare bare ba kenn du ko mën a seet nam toll ba tey wasalawaat ak julli alxamsi yu juróom bokk na ci tax a mucc te tax a bari xéewal fonk julli juróom julli juróom fonk ko isaa uqimat ndéem taxawleef na leen fii jamaaxatin ci mbooloo bi xoddoori xalbin ànd ak teewu xol waxu shooxin ak ragal yàlla wa taajili arkaanin ak jubbanti ay ay ponk mooy jubbanti ay cër neena ya, julli juróom boko re dee ci mbolo te and ak tewlu ci sa xol màggaayu yalla so ci ritam nee na ci sant nga jugal cër yi jugal xol bi dal xamni mom sam nga teggin cër yi nee ci wax nga def ko xol bi tam yaangi tewlu nopp di jullee ci mbolo ne lolu bokay def rek dal di bari wërsëg dal di bari xéewal bu ci tam bolé ci qala la ta'ala borom neena yonante bi wa amur digalal ahlaka sañu bi salati ci julli wastabir te nga muñ alayha ci julli la nas'aluka deet nu lay laaj rizqan warshak ndax nahnu nun narsuquka daanu la warsagal wal haqibatu te mujj sant mujj ñu sant li taqwa ñal na ragal yalla sun borom neena yonante bi julil te digal sa waa kër ñu koy def te nga muñ ñoom itam ñu muñ ci di ko def ndax kat loolu noo la ko sant ne wërsëg moom noo la ko amel yow sakkuñ ko ci yow nu koy noo la koy jox yone wërsegal di wërsegal doomi adama yépp té nak bu gu rafet mom ñu amé ragal yalla rek ñoko yam bu gu rafet mom ragal yalla rek ci laaju وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتهن دم جلنجلين كلهن كيف تنيوم فك بو يعني دفو جبل الخمسة جلن جروم حلت كون فتشي عن كوريس هذه جلة مقدة بس بس وأطلقت يوي xanqa ci yow xaasihi gile muxdatan kóllëre wala luñ gàlloon ci saw loos wa sarafat te walbati xanqa walis la xaasihi gile baliyatan musiba xaasimatan guy aj rëy wa wadaxat te teggi mooy te sippi xanqa walis la xaasihi gile kabiratan bakkaar bu rëy wa xasalat te fóot xanqa walis la xaasihi gile moo bi xatan aji alage kon daal ne jur yi boo leen dee saxal genn gu ci nekk rek da lay andil xéwal googu la gee yeewu la ci ab yeew buñ la yeewoon gee teggil la luñ la tegoon gee wëlbatil la musiba mu jëm si woon ci yow gee sippil la bàkkaar bu rëy gee fóotal la lu bon loo xam ne lu la naroon alal la fekkee ne farata yi moo amee njariñ noonu mu tekki nag ne suma nawaa filuka topp say naafila zulfa lu lay jegeel yàlla la maanaam ko defee nag naafile yi moom boo ko barilee ngay gën di jege sa borom rek ndax sun borom daa waxan ca addis bu wéru ne lim gën a soxla ci jaamam mooy mu taxaw temm ci farata yi waaye nag bu ma taree farata yi ba noppi di bari naafile yi day mujj rek mu sopp ko dal di wax nu muy baree njariñ lool gannaaw bu mu ko soppee xam kon naafile yi baax lool wa salla ku julli as salawati julia al-khamsa di juroom fi jamaahatin ci mbolo fa xadd malaa kon feesal al barra jéeri wal baxra ak géej ibadatan ci jamu yalla neena bo saxé ci julé julli juróom ci mbolo xamal ne ko na nga am tuyaaba ci reey reey jo xamni xajul fen motax mu ne nga ak yep ci jaamu yalla bu saxo ci mbolo dal mi ngi def jaamu yalla yo xamni xajul fenn والحيلة بخيمة لحضور القلب نيالتاو قلبة في الصلاة تجلقي أن يدخل مودي متابي فيها تجلقي وقد قضى تفقنا مفج أشخاله أي سخلا وأن يكون أمنك مأموما دي لا إماما دي إلما وأن لا ينظر أمبان خول إلى ما جمت لو خمني يلهيه دانوك سخلال وأن لا يكون أمبان نك في موضه تأبرك يسمه بدنا ديك ci bërëb bu maa loo xam ne yuudi yi da koy lor ne bokk na ci li tax boo dee julli mën a teewlu boo amee yenn soxla nga faj soxla yi ba noppi door a tàmbalee julli ndax boo ko defut boo tàmbalee julli sa xel yi dem ci soxla yooya muy luy sayte rek fexel ba noppi ca bala ngaa dugg ci julli gi soo mënee doon maamam itam moo gën doon ilimaan ndax daa mel ne li ngay mën a teewloo ci boo doonee maamam mën naa am doo ko mën ci boo doonee ilimaan su ko defee itam nga fexe ba say say bët bañ di xool dara loo xam ne sam xel da cee dem nga di ko xalaat nga bañ a jullee ci béréb boo xam ne day am looy dégg ci say nopp ndax li nga dégg ci say nopp da nga koy daal tàmbalee xalaat kon lépp loo xam ne mën naa am lay lor boo dee julli rek kon na nga fexe bul nekk ci béréb boo koy déggee su ko defee itam wa an sàlla ak mu jullee fii mawdihin ci ab béréb mudlimin buy aji lëndam fa huwa moom ajmahu moo gën a boole lil xal bi wa ahsanu mo gëna rafet lil munajat ñeel deyale yalla patay neena bo mëne julé ci bërepp bu lëndëm mo gën ndax ci ngay mëna téyé sa xol ndax do gis dara to dégg dara itam xeyna dégg fofu wét fofu dal ci bërepp bu lëndëm bi ci ngay mëna gëna dékko ci sa xol li ngay def ci ngay gëna mëna rafetal deyale ak yalla gi ndax fal musalli aji julli ji naa ji day ak rabbahu borom fa inam yakun dem ko rek yaraahu diko gis fallahu yalla subhanahu sore na ko lepp leelu ci mom yaraahu dana ko gis wa yuqbilu te muy degmal ilay jëm ci mom neena xamal ne bo de julli da ngay diyaale sa borom kon loolu war nga ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne bu fekkee ne yow gisoo ko itam moom mi ngi lay gis wal yadkur nay fàttaliku al musalli aji julli ji al jahima sawaraw jahim wa xawlahu akum tiitam wa yowma alqiyaamati ak bis penc wa toolahu ak yàggaayam wal maut ak de wa karbahu ak jaqare wala halaha te xeyna lay julli gogu akhiru salaatin modi aji mujji julli yu salliha goog dana ko julli gog dana ko julli ene bo dee julli ngay fàttaliku birum de ak ni mu mettee ak bis ak namu yagge ak sawara ak namu doy war ak xeeti tis ci bari yoy ko defee nga nga fàttaliku tam ne kat julli gi nga julli bo tut moom ngay mujji julli ci sa dund ndax man na nga ca top lu fekk ci dundu wa min bokk na ci aydan ba tey salaatu duha julli yor yor bokk na ci li tax nga mucc te bari wërsëg xéwal ngay saxoo julli yor yor wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaatu duha julli yor yor te ñàkk waaw bi nee na julli yor yor da lay ñoddil wërsëg dàq la ñàkk moo tax kon julli yor yor bokk na ci joxe wërsëg te tax a mucc wa salaatu tatawuhi ak julli coobarewu ngir yàlla nee na bari la julli julli yi nga xam ne warul yaa ko coobarewu di ko def rek mi xeet naafile ci julli loolu dana tax a bari wërsëg dana tax a mucc itam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaa aba ci julli fa inna allah naka yàlla taxalaa laa na yaati kat na la dikkal dana la andil bi risqi ci wërsëg min xaytu laa taxtasibu ci foo xam ne doo ko foog waaw nee na yonante bi moo waxal ne ko deel di ko digal mën ci farata moom sañu leen koo bàyyi waaye nag bu farata jàllee lu ngeen mën ci naafila itam ngeen di ko def yaag sa waa kër loolu day tax yàlla wërsëgal la wërsëgoo xam ne foogoo ko woon sax wa min zalika bokk na ci loole as sadaqatu saraxe ورشة بو خامني فو بوكو وون صاح ومن ذلك بوكو نتي لولاي الصدقه سرخه سرخه دا تخ يالا بري سو قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصدقه سرخه تمي داي دولي الرزق ورشك وتسيد تمي دولي في الخمر تي دوندغا اه يونتي بني سرخه يوك سو ورشك دولي توفن مانام داي تخا غودو فان تبري ورشك موم سرخه Wakala qala sallallahu alayhi wa man amlaqa ku ñak fal yutajir na yahantu ila allah jëm ci yalla bi Yana ci saraxe ya. neena ku ñak te bëgg womal ne jëflante ak yalla ci kaw sarax jaami yalla yi ndax bu dee sarax jaami yàlla yi mi ngi lebal yàlla te koy fay lu jeexal lu